ci biir plan décennal de lutte contre les inondations nag dafa am benn volet boo xam ne dañ koo jël dénk ko ADM muy projet mu laal Pikine Guédiawaye euh, te war laal Ndar ak euh, même zone Diamniadio mais li ñu gis mooy fépp fu projet bi jaar inondation amatu fa te li may wax lu ñu mën a euh, lu làmb daj lañ koy wax te ci biir jataay bi gis naa fi maire Dalifort boo ko laajee nu Dalifort meloon avant projet bi di ñëw ak ni mu mel tey ñun dem nañ fa weer ci ginnaaw mais li ñu gis inondation amatu fa euh, non seulement inondation amatu fa mais aménagement dañ ko def ba bërëb boobu neex dëkk léegi donc projet lu am am njëriñ la loo xam modèle la boo xam en tout cas fu ñu ko appliquer rek dinañ gis ni dina dox. projet mooy projet bi nga xam ne si euh, président Macky Sall bi mu ñëwee en 2012 dafa defoon lu ñuy wax plan décennal de lutte contre les inondations mu am ay projets yu bëri yu nekk nag ñun au niveau de l'ADM mu jox ñu benn projet.

ñu indiwaat ko teg ko ba nga xam ne ni ndox bi bu tawee day jaar fi mu waroon a jaar dem fi mu war a dem euh, si lool nag dañoo xool euh, ñi nga xam ne ñëpp ñoo ko seq parce que lu nekk euh, nañ ko def ju nekk nañ ko waxtaane moo koy jiitu te booy waxtaan nag da ngay waxtaan ak ñi nga xam ne ñëpp mbir mi soxal na leen kuy wax mbir mi nag soxal na da xool déjà ñi nga xam ne ñoo nekk si gox yi mooy les maires ak techniciens yi nga xam ne ñoom la ñuy liggéeyal waaye également da ngay jël ñu melni ay anasim ñuy wax affaire météo ñi la mëna wax euh, nawet bi naka lay tëddee euh, dina taw du taw dina ngelaw du ngelaw euh, ñooñu tamit dañ leen boole ci liggéey bi wa direction de l'environnement wa direction de l'urbanisme ak ay direction yu bari tamit ku nekk gis na seen loxo ak direction de l'assainissement seen loxo ak seen liggéey si wàllu lii nga xam ne moom la ñuy def pour que inondation mbënd mi jeex si Sénégal donc ñooñu ñëpp nag la ñuy dajale fii ak universitaires yi parce que tamit euh, renforcer connaissance bi moy xam-xam bi ci walu domaine bobu nga xamne mom moom lañ ñu dénk dafa bokkoon ci sunu ci sunu liggéey du won rek ay def ay canalisation ay bassin mais également xam-xam bi nga xamne amna ci aduna bi yépp lañ bugg dajalé ko tënk ko euh, partager ko entre ñun acteurs yi nga xamne ñoy intervenir ci projet bi

day yomb parce que ku nek diga nek ci même niveau d'information information mo loolu moo indi lii tey mooy septième eh, session bi eh, juróom ben session yi ko jiitu woon yëpp noonu la tëddee won également moy eh, waxtan jëli ay experts fu ñu mënti nekk si àdduna bi ñu ñëw ñu and ak ñom waxtan ak ñom partager connaissance bi partager xam-xam bi ba nga xamné ni vraiment bu projet bi jeexoon tamit ku nek bo amé tuuti ci ce budget rek nous nga utilisé utiliser pour lutter contre le mi ci sa biir dëkk te dafa ànd tamit vraiment lu lu am solo aménagement lutter contre inondation ak aménagement dañoo ànd boo demee ci dëkk yi nga jaar projet bi di ko bu baax changer complètement te loolu def la population yi projet bi 31 décembre 2019 bi lay jeex pour une pour financement banque mondiale mais financement FND bi ñoom yokk waat nañ ko ba un an euh, te ñu ngi tamit jéem a xool modèle bi nga xam ne mooy modèle projet bi naka lañ koy mën a dupliquer a defar beneen projet boo xam ne vraiment dina mën a gën a yaatu parce que résultat yi nga xam ne moom la projet bu njëkk bi def kat gouvernement bi kontaan na ci partenaires yi kontaan nañ ci population yi kontaan nañ ci kon ñu ñëpp ñu ngi euh, yaakaar ne daal lu mel noonu duñ ko arrêté 31 décembre 2019 et que dinañ utaat benn boo xam ne dina gën a yaatu pour continuer liggéey bu rafet bi nga xam ne ñëpp gis nañ